asalaamaaleykum mbokki internet sunugal 24 point net gannaaw ba leen nuyoo tey ñu dikkaat ak yéen suñu émission bu am solo bii di xalima bu ñëw ñu si dalal boroom xam-xam tey kin dalal xam-xamam màcc lool jëm si wàllu faju cosaan ak aada fii ci réew mi ak fële ci bitim réew muy Cheikh Mamadou Fadel moom lañ dalal tey fii sunu émission bi bu am solo bi di sunugal 24 point net ñu si dalal boroom xam-xam gannaaw ba ko nuyu mbokk internet dañ koy bàyyi mu nuyoon teg ñoom ñu doog jubli si waxtaan bi Cheikh ñu lay dalal di la wax asalaamaaleykum. waaw asalaamaaleykum wa barakaatu. Euh, ñu ngi sant ñu ngi leen sant di leen gërëm sant kilifa diine ak kilifa aada euh, di sant euh, seen site bi ñuy wax senegal suñu gaal di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. mu tukki woon nag tukki bu yàgg lool askan bi gëjoon ko gis namoon ko lool muy bu yàggoon fàcceel aajo Cheikh lu waral tukki bu yàgg bi. waaw tukki bu yàgg bi de. nekkoon ci aajo doomu aadama yi rek waaw nekkoon ci aajo doomu aadama yi ndax xam-xam dafa nekk loo xam ne kenn waru ko foowe lépp loo xam ne yaa ngi koy dëgg yaa ngi am ay retour ci nit ñi hmm. ñu ngi lay wax maa ngi gis di maa ngi ñu soxla ci yeneen aaj yoo xam ne ba xam-xam yaa ngi yore loo xam ne waa yeneen ñoo xam ne dëkkuñu ci mi ñu ko soxla il faut tam il faut que tamit ngay génn réew mi wuti yeneen xam-xam yoo xam ne du xam-xam waa réew mi waa man nekkul waa réew mi kese laa jëflanteel hmm. bu fekkul waa réew mi kese laa jëflante fii rek laay yem waa dama jëflante ñoo xam ne tey ci bitim réew la ñu nekk ñoo xam ne ñu nekk suñu ay dëkkukaay yu nekk ko genn euh, ci Afrique bi ñoo tey dañu soxla liggéey yi may liggéey moo tax may génn tey di demee di sakkuwaat ay xam-xam mooy comme yi ma la woon léegi ay tuur yi ma la woon ñi ay euh, samay maam yu nekk ci àll bi ñoo xam ne ci yeneen dëkk yi comme su région yi nekk ci àll bi ba defoo di sakku ji xam-xam waaw xam-xam yu bari nag yoo xam ne nag alhamdulilahi rabbil alamin nafar nañ ko macha allah jërëjëf mhm. jërëjëf Cheikh bi loolu am na solo ñu dugg si wàllum seet seet mhm. bëri façon ñii di seetee petaaw mhm. ñii di sam seetee ramlu ñii di seetee suuf ñii di seetee kurus yow ban façon seet ngay seetalee doomu aadama mën a faj waaw man seet yor naa ci bu kurus bi dama koy def euh, ak bu suuf ak bu euh, seetu même bu seet bi dama koy def ak bu ndox bi tamit dem ciy seet waa dama nag li may liggéey damay xool biddéew doomu aadama bi ma ci mbiru biddéew doomu aadama lay yëngu ba ma demee ba xool ba xam ne yow mi sa wërsëg attan na ma sonn si say mbir ba yàlla may ñu ci am ci ndam man ci bu ma xamee yu mën a jëflante rek dama lay wax teel sa xaalis ba yàlla def incha allah bi aaji bi ñu soxla ci biir 17 jours yi moom yéen xam ne ci biir 17 jours yi yàlla faj si sa aaji bu faje aaji bi incha allah rabbi li ñu waxante woon yàlla dañ def incha allah rabbi euh, nga joxe li ñu waxante woon te yaakaar naa maa ngi ci am retour bu baax ñoo xam ne bu ñu seetaanee xam na li doon jëflante. loolu gis naa ni yow sa ñu bari ñi seetal yëpp. 17 jours nga leen wax. te 17 mhm. jours yooyu du ci génn. Mhm. seen aajo faju waaw lu waral li ni mel loolu. waaw xam nga doomu aadama lépp loo gis rek la commencé. Mhm. set yi ma la wax nii mooy comme 7 jours yi. ci biir 7 jours yi lépp loo xam ne defar nga ko doomu aadama. ci càngat. ci biir 7 jours yi ba fekkee dafa xam ne loo xam ne mbir ubbeeku la war mbir yu nekkoon ci yaramam lu bon ci biir 7 jours yi xam ne fan yooyu yëpp mot na 7 jours. incha allah dana gis yaramam loo xam ne gën na ko gis ci yaramam aaji bi nag ci biir 17 jours yi nag foofu noonu moo nekk loo xam ne nag lépp loo xam ne mu ngi ko doon yóotu yàlla dañ def loolu dana ko a yomb waaw loolu moo indi waat 7 jours moom boo sangoo garab 7 jours war nga xam ne garab bi ma sangoo nii garab bi baax na ci man sunguf noonu la mel sunguf moo nekk loo xam ne boo gisee ñu ko wax jooni jooni noonu mel ñun xam nañ ko boo xamee boo demee ci boo laaj suñu mbokk pël yi ñoom xam nañ lan mooy sunguf waaw. dem nit koo xamante ni dafa gën a ubbeeku. Mhm. mbiram yëpp tëju. Mhm. xam nga koy ubbee waaw xam nga ubbeeku moom. Mhm. dafa nekk loo xam lépp lu ji ubbeeku la am du ko jiitu. mooy muslaay. muslaay te àdduna tey bi daf toll foo xam ne tey képp lu musaluwul deful muslaay si sa bopp. pour benn dara xew pour mu dal si sa kaw day yomb. mooy boo bëree mooy muslaay muslaay ku ko amul rek xamal. boo génnee sa kër mm-hmm. xam nga danga génn de génn nga de wan sa ñibbi si moom ba moytul moom xamal ne sa sa bakkan bi peres moom ci xottu gerte la nekk mooy ñàkk am muslaay mm-hmm. ndax tey ñu ci bari tey ci àll bi mm-hmm. ñu bari tey ñu ngi génn tey di dem di wuti xam-xam yoo xam ne pour am alalu aduna te xam yooyu noonu def am xam-xam bu ñuul xam-xam yu ñuul yooyu nag lan moo ko indi mooy da ngay def ay gàllaaj yoo xam ne yaa ngi koy suul ci ay ci ci ay yoon yaa ngi ko surtout am noo xam ne si doomu aadama jaaree buñ ci amee ay gàll buñ ci amee gàllankoor yow loolu mooy yokk sa sa am-am. waaw dafa am nit ñoo xam ne seen am-am mooy gàllankoor nit yi ngay dëgg ci réew mi mooy diw dee na diw rey na nit di def na nangam diw def na nangam nan la di mën a defee lii loolu def am ñoo xam ne seen xam-xam loo loolu def am ñoo xam ne seen am-am. loolu moo nekk seen am-am saa bu ñu déggee lu ñaaw ci biir dëkk bi rek ñoom ñu ngi wax alhamdulilah rabbil alamin ndax seen seen mbir ma ngi yokku ma ngi jëm ci kaw loolu nag ay xam yu ñuul la yu nit ñi di jëlee ci àll ba di ci yàq ay gor waaw man damay wax nit ñi mm-hmm. a ah, man de ku gëmatul ku gëmul affaire bi sëriñ mm-hmm. man dama xam damay wax rek yow xëy naa sa ñàkk gudd fan xëy naa dafa nekk ci euh, dafa nekk ci xottu gerte mm-hmm. ndax adduna bi moo toll foofu bu njëkk loolu amul woon wante da gis ñoo xam ne am nga baal mais dafa ne tamit dañuy yàq deru sëriñ si wax ñëw ni ñoom mën nañ te mënuñu waaw xam nga xam nga nit boo ci bokkul boo ci bokkul nit ci loo bokk mm. danga koy sàmm te ñun dafa nekk loo xam ne dañ koo dañ koo donna ci deret dañ koo donna ci soow kon loolu lépp lu koy rafetal ak lépp lu koy jëmale ci kaw ñun ci loolu la ñuy yeew ci loolu la ñuy xëy ci ci la ñuy gont waaw loolu lañ fekk loolu lañ xam mm. loo tax boo gisee ma xawoon géej fii nga géej ma gis mm. mooy dama duggaatoon ci àll bi wutiwaat yeneen xam-xam ak tamit ñeneen ñu doon jëflanteel tamit ci àll bi waaw ñeneen ñoo xam ne maa am na xam-xam yoo xam ne ci yeneen réew Afrique bi laa demoon jàng ji ko pour demoon tamit yokkaat xam-xam bi waaw aajo bu doomu adama indi fii daal ci mbiru ubbeeku ak mbiru euh, muslaay yàlla may na moom mu ngi fi. mu ngi fi jërëjëf mm-hmm. Cheikh am na solo gannaaw ba nga ubbee nit ki soxla na bayra mm-hmm. bayra mm-hmm. bayra bu waaw bayre comme ni ma la wax rek muslul pare def bayre bari ni ngay gis nii rek li ngay gis nii lii di saxaar si rek ànd ak cuuraay yi cuuraay yu baax yi. Ah, waaw waaw waaw ànd ak cuuraay yi ànd ak yu baax yi. ba boo ko ci boolee. boo ko ci nii def ni suuru nit warul xëy ci suba. di dem di wuti. li hmm. xam ne ñëpp ko soxla. Hmm. li ñëpp di xëccoo. boo deful sa yaram pour nga ñàkk ko day yomb. lii dafa nekk garab boo xam ne xëy na poli moom xam nañ ko wala nit yëngatu ci biir biir ñi. xam nañ ko wala ñu yàgg dëkk ci sëriñ dem ci sëriñ bii def nekk garab boo xam ne dafa sax ci kaw garab waaw doo def nekk garab bu ndaw lay doon nag boo koy di def nekk garab bu ndaw waaw fekk garab bu ndaw la mm, mm. léegi nag am na loo xam ne da nga ko ci jàng jat ko ci soo koo dindi xam nga surtout moom kenn du ko wax waaye nag da nga koy jat dindi ko après boole ko ñu ngi koy boole boole ko ay cuuraay mm. xam nga ci kaw garab la def saxaat ci gaw loolu day yëkkati doomu aadama foo mën a nekk bu dee place biti nga yor yaa xam ne place boo mën a yor wante nii ngay féete nit ñi ci kaw nga leen di féete toujours ci kaw nga leen di féete. ku ku bëgg dara loo mën a yëngu ba ci politique bak ba ci football bak ba ci lu mu mën a doon boo koy yeewu di ko laal toujours fi nga nekk ci kaw rek ngay féete. waaw na solo. numéro mm. téléphone yaa ngi noonu ak si baaru cent soixante ci waxtaan bi ñu ci wàllum nopp. Mhm. Mhm. xam nga moo kii ñaar ñi bëggante. Mhm. moo xam ñaar ñi sëy. ban façon nopp moom. bari na ay façon ci kaw ki nga koy defal ki nga koy ki nga koy yow ki koy def fekk nga ragal ci yàlla wala nga ñeme yàlla ñaari rek moo am ci doomu aadama nit ci li ngay liggéey am na ku ci ñeme yàlla am na ku ci ragal yàlla am na nopp yu bon yoo xam doomu aadama mën la la wax nii laay loo nga nit ki nan la ko mën a nan la ko mën a defee wala nan la mën a waxee wax ji fekk moom xëy na moom moom moo jël moo jël engagement pour pour pour pour def moom yenn yu ñaaw yi waat man balaa ma lay noobal damay xam ne yow bu dee ko jigéen ma xam ne yàq sa jëkkër wala yaag sa euh, jabar yéen ñaar yàlla def na yéen ñaar seen wërsëg ànd na ndax man toujours ñun ñooy man di wax nopp laa bëgg diggante góor ak jigéen dama la wax da xool ba seen wërsëg ànd na ba ko jigéen kii wala ko góor kii est-ce que jikkoom doy na la ci lislaam est-ce que doy na la ba pare ba xam ne yokkute am na fa ah nga soog a def seen diggante ñoom ñaar yàlla def nañu bëggante nga defal ko loo xam ne yàlla euh, dana def loo xam ne ay xeex du nekk seen diggante ba xam ne bi daal lu doomu aadama soxla ci nit mën na ko am te mën na dana dagal ci moom waaw noob boobu dañ koy defee ci boo xam ne dañ koy def ay fas maanaam fas nga ci waaw boo xam ne dañ koy def ay fas ah. boo xam ne waaw am na bari na ay fas yi ci ah, bari na ay fas am na boo xam ne tamit Euh, comme genre bii tamit dañ koy dañ koy fase comme ay nopp am na boo xam tamit day nekk koo xam ne euh, ay wëñ yu ñuul yu xonk yu weex yooyu yëpp dañ ko koy defee sans départ am na boo xam tamit ci buy mooy xooxu buy waa am na foo xam dañ koy defee tamit euh, dugal ko ci biir dem yóbbu ko ci fi ñuy wax dex gas ko suul ko foofu yàlla def yàlla def def jàmm incha soobee yàlla lépp loo soxla ci nopp yàlla da lañ may da nga am ci li si soxla waa nga surtout nekkul lépp la ñuy wax waa ni ba nit woowee rek bu ñu waxee lii la soxla rek yu xam nga aajo bi nga ko mën a defarale yow yor nga aaji ko mën a defarale loolu am na solo mhm. ki nga xamante ni ay mbiram mhm. lépp mhm. comme ni ma la wax rek nit balaa nga ko ubbi da koy xoolal ay mbiram waaw boo xoolee ba xam ne kii nii lan moo ko téye bu fekkee ay lambi ko téye nga mën koo defaral ay mbiru lambi mu sangatu boo xoolee xam ne dañ koy liggéey nga mën koo defaral loo xam ne day toj liggéey bu fekkee koo xam ne rab moo ko jàpp nga mën koo defaral loo xam ne rab bi dana deñ boo ko defaree loolu ba pare incha allah lépp loo ko jox moom du mën na ci ubbeeku waaye nit ki boo ko bëggee da nga ko ubbi kese yokk yóbbal jox ko sunguf tam est-ce que moo ko jàpp rab bi nga war a dindi wala euh, dañ koo liggéey wala est-ce que nekkul tamit euh, dafa dafa dafa am cat yu nekk ci moom yooyu yëpp nag bu ñu ko demee ba xam ko rek mm-hmm. incha allah rabbi boo fi ñëwee moom dañ la koy fajal mm-hmm. waaye ku sori ak ku jeg yëpp dañuy jëflante ak moom. même ki nekk bitim réew. même nekk bitim réew mën na ko yóbbante loo xam ne bu ko defee lépp lu mu fekkoon ci yaramam lu bon dana deñ bu fekkee ku fi nekk ku fi nekk tamit gis nga li ngay gisee lekket bi. waaw lekket bi ngay gisee nii. yii waaw li weñ pour semmin la. bii di gor. bii mhm. yax la boo xam ne nagu dëj la. waaw nagu dëj kilifa. Mhm. moom lañ ci boole. lii ay bëñ la. bëñu benn mala la. waaw benn mala mala boobu noonu. Euh, waaw déedéet du gaynde sax du gaynde ah. lii ay xeeru euh, ti euh, tiim la mooy xeer yi ñuy wax xeeru tiim ak boole ci ay puus boole ñu ci boole bu la joxee nga sàngatu ko mm-hmm. loolu la ñuy wax ngente waat sa bopp lépp lu mu fekkoon si sa yaram lu bon da koy dindi da ngay beesaat tak te ku la lepp dina laal ci mbiru liggéey moom xamal ni kooku moom dana dana dana dana dana dana dana yuuxu mm-hmm. dana yuuxu am na tamit fas bi bii tamit dañ la koy defar nga takk ko sa ndigg wala ko képp koo xam ne liggéey na la. loolu dañ koo jàng ci xam-xam yi dañ koo jàng ci sous région bi. képp koo xam ne liggéey na la. dana tëdd guddi di gis loo xam ne moom ci boppam dana tiit ba mujj ñëw ci jëfaru ñëw ci di loo xam baal ma ak man maa la liggéey yoon baal ma ak liggéey. baal ma ak man dañ la koy defaree ci fas bi. yaa xam nga def ko ndomb bu dee góor bu dee jigéen tamit mën nga ko def ko fas nii rek nga koy tàkk. képp ku la laal dana jëfaru guddi dana ñëw ci di man maa doon liggéey. man maa doon liggéey. waaw te adduna bi moo toll foofu léegi. képp ku bàyyi ku bàyyi sa bopp nit ñi nit ñi génne la àdduna ñam ñi ñëw top continuer toog di reetaan seen ay reetaan. loolu dëgg la. Hmm. mais Cheikh ba ñu dem ci wàllum këyit. Hmm. ki nga xamante nekk na bitim réew. Hmm. da gis ñoo xamante ni nekk nañ yàgg na nekk bitim réew ay 10 ans. ñu ñëw wàññeeku seet seen njaboot tax lu jafe lay doon ndax wàllum këyit. parce que dañuy dem ñëw. lu delluwaat. wàllum këyit moom ak ki nga xamante ni bëgg na tukki tamit. soxla këyit këyit jafe ko lool. waaw këyit moom pour bëgg ki moom nan lay nan nan nga koy saafara. waaw këyit waa këyit moom ñu ngi ci am daf di ci am ay retour bu du ci am retour. dëgg la loolu moom dëgg la waaw këyit mbiru këyit comme ni ma la wax la xoolee ba xam ne mbiru tukki yàlla def na loolu jot na ci yow am li ñu lay jox nga euh, nga sàngatu ko génneel la sarax li wax nga génne ko wax la wax la yére booy sol ndax ni doomu aadama nekku rek da ngay jëm rek sol yére bu la neex nga demee wutee ji ko visa wala nga dem déposer ak papier dafa am yére booy sol aaji ba mën a wuti yàlla dañ la ko yombalal loolu moom am na kilifa yoo xam ne wala am na sëriñ yoo ne xam nañ loolu xëy na ñàkk ko bañ wax nit ñi nag am na yére boo xam ne booy wuti boo ko solee lépp looy wut da ko yombal yàlla da ko yombalal pilis tamit fekk nga xam ne tamit nga defar nga yaram bi boo ko defaree rek yàlla day def incha allah soobee yàlla euh, bu ñu jëflante yàlla dana la may incha allah rabbi ci mbir papier dana la yomb soobee yàlla waaw loolu ñu xam la lu ñu jàngala te aussi lu ñu luñ ci am tamit retour bu ñëw si ñun la. dëgg solo. Ah. Mhm. léegi léegi ñu dem si wàllum cat. Mhm. cat sonal doomu aadama bi lool. Mhm. ki nga xamante ni dangay gis koo xam ne dafa nekk ci yoonam di dem. jékki-jékki cat gàllankoor ko. mooy yëpp yàqu. cat moom ku ñëw cat moom cat moom cat moom luñ koy saafara bu gaaw la sax. gis nga gis nga limon bi ngay gis ni puso laa gis nga gis nga limon gis nga limon bi. waaw doomu limon bu verte bi lay doon. waaw doomu limon bu verte bi lay doon. boo ko defee ñu ne la jëndal puso. dana la wax ni ngay def. Mm. ba nga jël puso bi yàlla def nga dugal ko fi mu génn fi. bu soobee nga teg ko sa wet. Mm. fi ngay fanaan. nga teg ko sa wet fi ngay fanaan. Mm. lépp cat bu mu fekk ci yow. da koy dindi ba doomu limon bi day ñuul comme nii. day ñuul kooku ba mujj day mujj nekk xottu gisoo nii. xottu la. gis nga làmmiñ cat noonu lay def doomu aadama mm. da ngay dox di miir wala da ngay gos boo gisee nit mu mel ne ñaari nit ngay gis loolu cat moo koy def léegi cat cat comme sa yuur bi lay laal mooy da ngay da ngay toujours foo nekk rek boo toogee boo doo la ngay da ngay toog rek di toog benn place di xoole wala toog ba yàgg rek mel ne sa tànk yi lañ laal mm. loolu cat moo koy def bu yàlla defee nag jàmm nga wooñu téléphone mm. soobee yàlla dana la wax ni lay tegtalee moom tamit limon bi nga koy def sa wet Hmm? booy génn nga koy def sa biir saak wala sax sa biir oto bét ba ci oto sax boo ko ci defee cat yi ni catu oto bii sax yàlla da def jàmm incha allah du jàpp euh, du jàpp oto bi. loolu am na solo waaw. Mhm. ko dégg mbokk internet bi. Mhm. loolu am na solo képp ku bëgg a jot service da nga koy woo ci numéro booy mhm. gaaw leen ñëw yi ñu faj seen aaj yéen nekk ci biir réew mi ak yéen ñi nekk ci bitim réew. képp ku nga xamante ni am na lu la jaaxal woo Cheikh bi incha boo ko wooyee ci numéro yi 887. 37 11 77 boo ko woowee mu saafara say mbir. Cheikh bi ñu dem ci wàllum tële. ñu mhm. kàttan. Mhm. muy feebar bu complexe boo xamante ni bu njëkk ba mag ñi la ëppoon li muy dal. mais mhm. léegi gone yi la gën a sonal. surtout ñu nekk ci bitim réew. dañ koy jàmbat lu bari new kàttan da ngay gis koo xamante ni day tax soxna du ci mën a dara du ko mën a dara. kooku moom bu ñëwee ban xeetu saafara nga koy saafaral ay mbiram. ba nga xamante lool loolu day dañ ci moom. carrément loolu moom maa ngi ci am bu baax. waaw loolu moom maa ngi ci am am na garab moom pour loolu la gis nga yi ngay gis nii. lépp lu mu fekk ci ci télé. Mhm. yaa xam ne émérite lay doon. yaa xam ne euh, pour télé. bu yàlla defee jàmm ñu jox la ko. Mhm. nga ko utiliser ni ñu la ko waxee. Mhm. waaw nag ci balaa ñu la ko joxe dañuy xool est-ce que nekk loolu moo la jàpp ndax doomu aadama am ñu bari tey euh, ñu ngi tey am tàkk jabar par du télé. télé bi mën na fekk seen jabar bi ñu takk moom rab rab rab topp soxna si. saa boo ko jegee rek yow dootoo nekk góor. loolu rab dana ko def waaw li ñuy wax waaw dana ko dana loolu dana faral di ko def góor bu fekkee nag yow ci moom boo nekkee moom boo nekkee da nga sentir sa bopp nga xam kon ci ci ci jigéen ki la moo am rab bu fekkee nag koo dem rek wala yow sa jabar yëpp boo yeggee si ñoom da ngay gis yow da télé boo ñëwee garab yi bu la ko joxee boo ko naanee soobee yàlla de incha allah rabbi yaakaar naa ne yow dañ lay wax sax génnal néeg bi boo moytul waaw yooyu moom ay ay kilifa sax ñu ma ci woo di ma sant garab bi saa bu ñëwee saa bu yegsee mooy jeex na maanaam moom daal boo ko utilisé moom dootoo jàmbati. ma ne dootoo jàmbati néew yaa dootoo jàmbati ndoxum siti ndoxum siti imbriqué yëpp da ko dindi. dañuy yor yenn garab mais dañ koy jox nit ñi. Mhm. ñu utiliser ko benn yoon. Mhm. après mu ñëwaat. Mhm. bi non bii kàttal bi kay pare nga ci. bi ah, yow xesee ba naan ko ba ñuy wax la ñu ko war a defee. waaw ah, ay traitement la yàlla xam na ne yow da may sant di ma gërëm. waaw loolu moom xam naa ko. aussi na mi nag ñu ngi ciy am bu tax bu ñu egsee rek yi jeex na. ni nga gisee nii Euh, bu ñu egsee léegi léegi léegi nii balaa suba la balaa gennaaw suba lu ma ci mën indi day jeex waaw ndax nit ñi waaw ndoxum siti bi tamit xam naa ne moom tamit lu sonal nit ñi la mhm. waaw lu sonal nit ñi la pour aar sa mhm. sa bopp ba nga xamante ni dara du la gàllankoor mhm. sa bopp ba nga belende maanaam belende kooku lan ngay lan lan nga loo xamante ni moom nee naa la nee naa la lekket bi képp koo xam ne sàngo ci lekket bi sa dund li nga ci desee bul bul ragal kenn ku lay def lu ñaaw nee la fas bi boo ko takkee si sa digg bul ragal bu ragal bul ragal si sa àdduna li nga dese pour doomu aadama dana dem di la gàllaaj demal doxal waaw demal doxal demal doxal ci loola neex xam ne yow moom aar nga sa bopp hmm. waaw aar nga sa bopp boo ko xesee ba laal ko rek soobee yàlla bu ragal bul ragal bul ragal cat bu ragal lépp loo xam ne lu jógul suñu borom daal bu ko ragal waaw loolu am maanaam di ko xeex di xeex moom tamit bu ñëwee am ay saafara. boo ñëwee am na ay saafara ñëw ne am saafara am na ñoo xam ne di leen xool dafa am ñoo xam ne boo leen seetlee da nga xam ne ñii sunguf bu sunguf bi moo baax ci ñoom ñu sangat sunguf am na ñoo xam ne da xool xam ne xaatim yi am na xaatim yoo xam ne yii pour xam ne dindi ay cat waaw pour xam ne ja cat la am na ñoo xam ne tamit seen seen biir loolu la gën a soxla mooy xaatim am na ñoo xam ne seen biir sunguf la gën a soxla am na ñoo xam ne ñaar yëpp la sans dépasser seen bi waaw sans dépasser seen biddéew am na ñoo xam ne il faut nga boole sunguf ci hmm. xaatim bi am na ñoo xam ne sunguf bi kese la am na ñoo xam ne xaatim bi kese la hmm. kon bu xoolee ba xam moom rek boo ko joxee rek jàttu muy ragal ci mbir liggéey. mais Cheikh naa fii lu doy waar. Hmm. muy dama gis ay nen nu xaatim fii. gis ñu jël benn cal jàllu jarax bu dëpp teg nen yi ci kaw. lii moom moom doy na waar maa ngi koy doog gis man waaw xam nga. Euh, nenu xaatim yi. ci lan lay dox moom. bi de ndox ci loo xam ne lépp loo xam ne def nañ ko ci doomu aadama. Mm. loo xam ne lu bon la te fekk nekku fi. Mm. te fekk dafa sol koo xam ne gàllaaj boo xam ne nit dafay jóge. di ko jëlee feneen. di ko sànni koo xam ne nekk ko fi. xam nga moom nekk ko fi nekkul day ñëw ba fii ñu mën koo defaral ay mbir. Mm. ndax mu ngi nekk ci àll. bu dem ko wax rek jëndal ñaari ñaari carax rek. boo jëndee ñaari carax. boo tëddee guddi da koy sol. boo paree nga bàyyi ko ci biir néeg bi. nga tëdd guddi. boo tëddee guddi boo yeewoo rek boo génnee rek da nga koy saraxe man nen bi bu ma ko jëlee ak carax yi may koy boole ni bu ma yeggee fa euh, intercession mooy fi yoon yi tase bu ma jëlee dallu carax bi ak beneen bi boo ko ci defee rek lépp liggéey bu nekkoon ci moom day toj waaw nit nag moo xam ni muy liggéeyee waaw tamit am loo xam ne sirru la nekkul danga nga di ko wax nit ñi di ko lii waaye nag euh, ñaar yi képp koo xam ne nekkoo fii rek mën naa la defal loo xam lépp lu nekkoon ci sa yaram lu bon ci liggéey lu bon man mën naa la ko dindi ba mu set wecc fekk ñëwoo fi. solo waaw. mais sëñ bi ñu dem ci man dafa mel ni alluwa bi moom gis alluwa xaalis bi. waaw alluwa xaalis bi ah. dafa mel ni maa ngi koy gis ay ah. alluwa bant laa gis mais bii c'est pas c'est la première fois ma gis ko nii. waaw mais alluwa bi moom. mu ngi war rek. Hmm. Euh, bi. képp koo xam ne xoolal na la xam ne borom alal nga. Hmm. sa biddéew. Hmm. xam attan na alal. Ah. foofu lañ lay bindal buñ la ci bind bindalee ba pare ñu defal la ko nga sangu. xam ne bëgg naa amam bu gaaw. amam bu gaaw ci àllo bi tam di ko ci bindal. ci sans départ ci wërsëgam fu mu toll. bu ñu xoolee biddéew bi xam ne borom wërsëg la rek. bu la ci bindalee ba pare yónnee la ko nga sangu wala nga jofal ko nga sangu. bu soobee sa am amoom ci kaw rek la jëm. waaw ci kaw rek la jëm. Mhm. am na tamit beneen boo xam tamit. boobu tamit dañ la ci bindal. Mhm. fépp moo xam ne képp koo xam ne ay affaire liggéey yu bon yu nekk sa yaram da koy tamit euh, dindi ñaari version moo fi am booy boo xam ne pour ubbeeku la beneen bi xam ne bu bu la ci bindalee lépp lu bon lu nekkoon sa yaram tamit da koy dindi. waaw loolu am na solo. Mhm. mais seen gis nañ émission saa yéen def émission. ak lu mhm. mu gis sondeel yi nga koy teg sa wet. Mhm. sondeel yi mu doon sondeel yu doy waar. sondeel sax. yu weex yu rose. mais sondeel yi moom ci lan lay dox. waaw sondeel yi daf bokk xam-xam yoo xam ne jànguma ko fi. sondeel yi moom saa bu may commencé nit mbir liggéeyam. sondeel toujours day tàkk. même bu ma yorul woon sax lu ma lekk moom sondeel yi moom. ala kulli moom day tàkk waaw ba ni may pare liggéey bi sondeel bi toujours day tàkk waaw mbirum doomu aadama nii lay tàkkee mm-hmm. waaw am na fu muy toll bu tolloo foofu mm-hmm. dañuy xam ne doomu aadama bi mm-hmm. sondeel bu ñu ko taalee am na foo xam ne bu yenn heure bu jotee rek sondeel bi mën na fay wala am fu mu oh, fu mu yegg si fay ñu mën xam doomu aadama dañu xam dañu xam doomu aadama fi yëpp fu mu toll waaw doomu aadama fu mu toll bu takkee ba jeex tamit da nga xam ne kii nit doomu aadama bi tamit mbiram fan lay toll waaw loolu tamit yëpp ci sondeel lépp day nga gis ne day wax waaw waaw lépp loo fi gis daal ngir jëriñ la aajo rek lépp loo fi gis daal aajo la pour faj aajo doomu aadama yi la waaw bu mhm. képp ku bëgg sa aajo faj yéen ñi nekk ci réew mi ak yéen ñi nekk ci bitim réew yéen laay waxal mhm. képp ki nga xamante ni bëgg na sa aajo faju mm. da koy woo si numéro bii mooy 77 887 30 71 boo ko waxee si numéro incha allah lépp li nga bëgg mu ñu aajoo ko say mbir dinañ ko aajo incha allah. ma la buñ mm-hmm. foo mën a nekk buñ la xoolalee boo xam nangam. Mm-hmm. wax ma la di lépp lu ma la mën a wax ci kaw suuf. ma ne la lii ak lii. da nga may wax di wax di da nga may wax di wax di waxoon nga ma lii waxoon nga ma lii ma nekk dem koo xam lu ma tax ma lay wax lépp la wax na la lii da lay dal wala lii ak lii ak lii boo ko defee nga yokk wala lii ak lii boo ko defee lii lu bon li jóge ci yow buñ la xoolee wax la ko rek yóbboo yow moom nga tëdd nelaw. dëgg la mhm. loolu am na solo. Mhm. mais c'est vrai xam naa li ñu doon cëroon ci waxtu moo jeex mais dañuy mhm. ni réew mi. bëri na coow. gis na ni dee bi tamit bari woon na fi gis na ni. léegi dem ci hôpital nga war a faju. yoroo xaalis ñu lay sàgganee ba nga ñàkk sa bakkan kee nga xamante ni ñu am doom. gars yi sàgganee ko ba mu ñàkk bakkanam. kooku lan nga ci mën a wax loolu bari na lool ci réew mi. waaw xam nga réew mi. li ma la wax mooy gàllaa ci li lu bon ñu def ci réew mi te di xëccoo xëccoo bi nekk ci biir réew mi fu ne nag nekkul politique politique bi kese sëriñ yaag euh, politique ak baag lambu baag commerçant yaag ñëpp a ngi ñoo xam ne tey seen ñëpp a xam ne ñu ngi xëccoo te xëccoo boobu dafa am ñoo xam seen xam-xam bu ñuul di ci bokk ci xam-xam bu ñuul boobu nag comme ni ma la wax léegi am na ñoo xam ne seen biir saa bu ñu dëgg lu ñaaw ci biir réew mi seen biir mu ngi yokku loolu seen xam-xam la seen biir bu ñu leen defalal boo xam ne saa bu ñu yeewoo bu ñu déggee lu ñaaw ah ci biir réew mi seen am-am seen am-am mu ngi yokku waaw loolu ay gàllaaj yi ñu indi rek suul ko ci biir réew mi saa bu ñu yeewee dañuy dégg rek saa bu ñu yeewoo dañuy dégg commerçant ba euh, jam na kii wala euh, médecin ba juum na def na lii loolu pour boo yaafu setul sa liggéey rek pour nga def erreur day yomb waaw. boo yaafu see rek même yow journaliste bi sax pour nga jum sax bind ci la waroon bind sax day benn di la wax bindal bindal lii lu bon li nga bind ko rek nga tas réew loolu day fekk xabtal yi ñu def ci biir réew mi la ay xabtal la hmm. ñii jaarale ko ci ndox mi loolu tax te ay ndox yi ngay gis nii ndox mi sax damay wax ñi ñu bëri balaa nga ci sànq sax dee ci def xorom ci biir waaw di tojal ndox mi xorom day dindi lu bari. waaw day dindi lu bari di def ndox balaa ngaa sangu di ko di si sànni di si sànni di si sànni xorom wala nga koy tàngal ba pare soog koo sangu lépp li xam ne so defoon na ko lu ñaaw loo xam ne nekk na ci ndox mi moom dina ko dindi. lii am fii mooy lu góor yi ñuy jàpp di leen liggéey loolu moo indi lu ñaaw li ngay dëgg ci biir réew mi fii bàyyiwuñ ko réew mi fi mu jëm baaxul de. waaw ñoom nag ñu ngi koy sàggan nag. waaw jamono toll nii ñu ngi sàggan puso bii nag ñaanuma yàlla muy réere ci loxo ñiy jiite réew mi tey jamono bu toll nii waaw wax dëgg yàlla fi ma fekk mag ñi nga fekk foofu ñu ba ñoo ñett ñoo ñëpp amul kenn ko dëkk Sénégal te ñoo ñëpp dañuy wax li xew ci seen biir réew mi fii réew mi jëm baaxul waatu yàlla dañuy may tamit sens dañuy nekk nit ñoo xam dañuy suñu kilifa diine yi boobu cër bi ñu jox kilifa diine yi rek moo ñu may sens waaye bés bu ñu dindee cër boobu noonu xamante réew mi fu mu jëm baaxul waaw ñu bari tey suñu région fi may faral di dem dañuy wax yéen Sénégal chance benn chance bi ngeen amee da nangu ngeen am kilifa kilifa da ngeen ko nangu loolu rek moom mooy ne seen réew mi am chance ba réew mi yenn yi sax du si naar ba kilifa yi waxee rek ñëpp noppi waaye nag na xale yi tamit ñoo si boppam ñoo war a góor-góoru gën a yokk yar bi yar dafa commencé manqué ci biir réew mi te yar bi il faut ñu indiwaat ko bu baax indiwaat tamit yërmande bi yërmande bi tamit dafa commencé jeex tamit ci mag ñi waaw mag ñi ñu war a am yërmande xale yi am yar waaye léegi xale yi ñu am yërmande mag ñi tamit ngay dégg ci mag ñoo xam ne après yow da nga wax lii lan la ko mën a mag mën a toogee di ko wax ci tele nga gis xale di wax lu rafet nga gis mag di wax loo xam ne après day di safaan bala jaar ngay wax loo xam ne amut wala ngay wax loo xam ne day taar réew loo xam ne xale bu ndaw moo ko waroon def xam ne moo xamul dara ci àdduna moo ko waroon def ah toppa doolam waa déedéet léegi te ay mag ñoo koy def waaw waaw réew mi daal mm-hmm. nañu indiwaat yar bu baax ci biir réew mi indiwaat yar indiwaat respect indiwaat yërmande indiwaat tamit di góor góorgóorlu tamit ci diini yi jàkk yi tamit manqué nañ tamit euh, ay sàppe yu bari de bu wéeru koor bi jeexee boo duggee si jumaa da ngay fekk ñaari sàppe bu tey bu jullit yi jógeen toy tàkkusaan jumaa jay fees ah suba jumaa day fees mm. tisbaar jumaa day fees tàkkusaan jumaa day fees timis gée mm. yépp fekk jumaa yi day fees doo fi dégg lu ñaaw ci biir réew mi ndax yërmande yàlla suñu borom day wàcc ci biir réew mi waaw wante bu fekkee tey bu xese bu wéeru bi jeex jumaa boo dem boo fekkoon fukki sàppe tey boo dem weer koor bi jeex benn sàppe nga fay fekk ah te yërmande mu ngi jóge ci mbooloo buy julli ci biir juma foofu la yërmande ci jóge te yërmande boobu def commencé manqué ci biir réew mi waaw nañ indi yërmande bi ci biir réew mi réew mi am jàmm ak salaam mm. waaw. moo tax yow sa lépp nga yeneen sëriñ yi nga xamante ni. Mm-hmm. lay liggéeyal bëgg encaisser sa xaalis. Mm-hmm. yow da ngay bàyyi liggéey ba pare doo ko loolu tax nga uteeg yeneen xam nga doomu aadama bu neenal xam-xam mm-hmm. dafa bari waaw dafa bëri ku ne moom xam na nee naa la nu may taale sama sondeel bi bu ma taalee loolu doomu aadama sondeel tamit xam nga day fay wala mën nga def nii sa loxo mu fay doomu aadama boo jëflanteel nga xam ne kii mbiram yokku na bu la naree def doo xuloog moom doo coox moom doo ko tëkku doo def dara man bu ma gisee bu ma gisee nit ko wax sëriñ nga ba pare tëkku doomu aadama man damay wax yow kon nañ xoolaat sa jullit nit doomu aadama ci li ngay liggéey nga mën a jaamoo yàlla ci li ngay liggéey nga mën a jaamoo yàlla lii am na loo dañuy fay suñ ay xaalis dugg ci àll bi lii am na loo xam dañ koo tarbiyu fanaan ci àll di gis ay jaan ak di gis lu ne di fanaan ci loo xam ne sax am na benn góor boo xam ne bu ma demee ci ma kooku boo ñemee ci teen ngay fanaan ci teen teen lan lay dugal ci biir waaw teen ngay dugg loolu boo fa duggee boo fa demee quelques minutes am na lu lay feeñ ci biir teen bi ñu mën a xam ne yow mi attan nga attan li nga lay jox wala attanoo ko waaw am na loo xam tamit dañ la koy jox dal nangam am loo boo gisee ñu xam ne yow attan nekk sëriñ wala attanoo ko waaw xëy na am na xam-xam yoo xam ne fii Sénégal ngay gis xam yoo xam ne ñoom dañ ko limité waaye tey boo génnee tey day gis am na ñoo xam ne seen xam-xam billahi azim da ngay wax kii ku amul bopp doo ñemee sax da ngay toog bay nekk sëriñ loolu waaw waaw xëy na Sénégal nag ku jóg rek nga ne man mën naa nekk lii mën naa nekk lii nit nag loo xam ne da nga koo donn fekk ko chaque jour noo mën a yii mën a def ba am ci ndam toujours ci loolu la ngay ci loolu ngay yëngu man toujours lu may def ba am ci ndam rek man ci loolu lay nekk toujours waaw te nit ñi am na ñu mu ci sant ñu mu ci gërëm waaw ci tamit nit tamit toujours na jë ngay jaamu yàlla rek ci li nga liggéey mën a jaamu suñu borom Mhm. Cheikh bi du ma daaneel mukk te daw ma ci mbiru Adji Sarr ak Sonko. li mhm. xam ne cool yu bari na bi gis nañ fii seen coolee. Mhm. amoon ne ay nit ñu si dee. ñàkkoon seen bakkan. ba kër ba kii de moo Ndiaye. Adji Sarr ak Ndeye Khady Ndiaye demoon nañ tribunal wuy ji. pour ñu atte leen. boobu ba léegi. mais gis nañ ni euh, gars yi joxe ko résultat yu leer ba léegi nii. Sonko tamit kenn woowu ko. mais loolu lan nga ci mën a wax parce que gis nañ ni gars yi ñu ngi coonaan est-ce que duñ yëkkatiwaat amoon. waaw te boobaa dee dinañ bari. deret mhm. dina fa xam nga xam nga mbir boobu. ñu tënk xam naa li mayoon ci wax. xam xam nga mbir boobu. Mhm. lu ma yàgg wax la. Sonko dafa nekk loo xam ne es ni xam nga suñu borom. Mhm. bu yëkkatee bu yëkkatee sa biddéew rek. bu yebee doomu aadama nangu ko. waaw moom ci boppam nag na fexe rek ba tey puso bi bañ a réer ci loxoom. bañ tamit yàkkamti. waaw ala kulli xaalin moom. président Sénégal mu da koy nekk moom. waaw loolu moom gëstu nañ ay mbiram gëstu ko gëstu ko allah kulli hali moom loolu moom dana ko nekk ci kaw suuf waaw li des nag moom def am ñoo xam te ko nekkee arrangé wu leen ñoom ñoo ñoom ñoo commencé di sotti ci cere bi suuf waaw di sotti ci cere bi suuf wante président Macky moom xam ne moom la yàlla dénk réew mi yàlla nag yàlla sutural rek jàmmal ko ba mu yàlla defal ba mootal li muy mootal boo jógee jàmm ak salaam keneen ki ñu mën a ñëw toog tamit ñu bàyyi suñu réew ndax ñoom buñ fi jógee buñ fi buñ fi pare dañuy dem ñeneen ñu desal ñu suñu biir réew kon ñu toujours nañ ñaan jàmm ak salaam sëriñ yi ñaan église yi ñaan ñëpp ñaan réew mi am jàmm ak salaam waaw ñoom daal loolu la ñaan xale yi tamit euh, am ci daal am ci daal ñoom tamit xam ni xam ni réew mi ñun ñoo ko bokk rafetal daal rafetal rafetal rafetal da dafa baax ci réew mi man du ma ci mën a wax daal ci biir politique daal na gars yi fex ba loxo ba pousse bi bañ comme réerul ci Soñ Senghor réerul ci Abdou Diouf réerul ci euh, Abdoulaye Wade président Abdoulaye Wade kon ba mu réer ci ci ci ci ci Macky Sall waaw Ousmane Sonko bi nga xam koy yóotu te moom la ko yàlla gina jegeel ak ñi fi nekk moom tamit na fexe ba pousse bi bañ a réer ci loxam waaw yàlla daal dana ko dénk réew mi wan na def ndànk rek pousse bañ a réer ci loxam ñun ñi tamit daal xam ne réew mi ñun ñoo ko bokk ndax ñëpp ay mbokk lañ waaw ñun ñëpp ay mbokk lañ fii amul pël amul séeréer amul joolaa man pour man ñëpp ay mbokk lañ waaw amul fii ku fi nekk fii di wax ay pël bi wala séeréer wala nangam day fekk xamoo wala am na looy wut mm. waaw réew mi daal lañ fekk réew mi boo xam ne daal yàlla may ne ay kilifa diine yoo daal ñun fii di ñaan yàlla nañ yàlla may daal possibilité bi bañ réer tamit ki suñu kilif yi sama maam ne ñu ngi toog ndax tamit bu dara amee tamit dañuy wax ah dañu nag toujours Sénégal ñu ngi wax Abdou Aziz Dabakh ñu ngi fàttaliku ñu ngi wax bu bu fi nekkoon ah bu fi nekkoon comme que moom tamit mu doon wax lu lu baax ci réew mi jàmma di am ñoom tamit nañu fexe ñoom tamit suñu maam yi toog nii tey ñoom tamit toujours ñu ngi ñaan te xam naa ñu ngi ñaan waaw ñu ngi ñaan ñi ñi dañu bëgg sëriñ ñu lu xew rek ñu wax sëriñ ñu ngi ñaan ñu ngi toog seen ay kurus guddi ak bëccëg ñu ñaan te yàlla may leen tamit baatin yàlla may leen baatin mhm. ni li ñu cëroon ci waxtu jeex mhm. mhm. ko toppee duñ fi jógee ndax ayoo jaam yi ngay faj am na solo lool gis nañ ni wax dëgg yàlla doo ba léegi ñu ngi lay dalal mais amul kenn ku ñu kalaame koo xamante ne dañuy Cheikh bi lekk na suñu xaalis tax fay li ñuy wax amul xam na nga tàggoo mu ko xam nga naa ni waxtaan bi moom duñ si doyal xam nga ñun moom doomu aadama man moom laa njëkk moom laa njëkk wut toujours ndax nit mooy lépp boo amee nit am nga nga lépp yàlla nit la gën a bëgg ci kaw suuf moo tax doomu aadama ba mu woowee rek ci saa si dama lay jéem a wax yàlla suñu borom ba pare ba ma xam sa mbiir ba pare ba wax la yàlla ak suñu borom li mu bëgg ak li mu bañ wala nga bañ a yàkkamti wala ngay muñ doomu aadama daf war a muñ wala tolof tolof daf bokk ci jaam luy baax day metti ma waxtaan yu ba am na ñoo xam wax yow moom même boo ma joxul woon même boo ma joxul woon euh, càngat man moom li ma métti woon yëpp dindi nga ma ko mm. ma nekk man loolu laay wut ci doomu aadama kon yàlla nañ yàlla may jàmm euh, yokk jàmm ci réew mi nangul suñu weeru koor euh, wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.